Omar na nga def. Ndeye. ça va bien. ça va bien. ngi si jàmm. maa nii rek. ndaka euh, tey Toussaint bi noo ko dundee. Eh, tay kay tey kay dama demoon fële. fële. fan. feeñee. amul amul tur. dama demoon quartier Thierno Ndiaye. Thierno Ndiaye. quartier Thierno Ndiaye laa demoon. waaw ci quartier boobu seeti. seeti ay booy ay ñoom maam Diarra Diouf. maam Diarra Diouf waaw. maam Diarra Diouf Thierno Ndiaye. kon waa Thierno Ndiaye ñëpp nuyu nañ leen. di leen ziar nuyoon. waaw non nuyu naa ñëpp kay demee. kon te la amul nuyoo bëri. ah férié kenn du nuyoo kenn du nuyu. loolu yëguma ko woon sama beneen invité lay bàyyi rek mu daal di présenté wu nuyoo nag di la wax bi moom rafet na. ndey maa ngi lay nuyu maa ngi lay rafetlu invitation bi nuyu sama naataango bi nga xamante ne moo di nday yow di Omar Rew waaw ah, dinaa la nuyu ndax koo fekk ci plateau da nga koy nuyu man dañ maa yar di nuyu ki nga xamante ne moo jàpp sama combat di Modou Mbaye nekk fene ca H&M xamante ne moom mooy génn fii tubaarikàlla di nuyu nag Bamba Ndiaye nekk fene ci Touba Sandaga borom plateau yu naay si moom moom a génne fii waa di nuyu waa Kawoon yëpp di nuyu ki nga xamante ne <laughs> yow di defal lu la saf maa ngi ñëw ci yow léegi du nuy ki nga xamante ne nag mooy alaaji Malick bi nga xamante ne dañuy cadré ba macha allah ñu jonga ma ci télé bi ki nga xamante ne bu ñu waxee bu ñu waxee ñëpp di ñu dégg moom mooy Daouda Gueye maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu Kumba Mbooj mi nga xamante ne moo yor wàllum dem ak dikk bi maa ngi nuyu ñëpp day kontaan naa nag ci invitation bu baax a baax ñu ngi lay remercier bu baax a baax di tax nuyu bi am na solo ak monteur yeeg ñëpp daal équipe technique bi waaw ma lii lan la damay afal. afal mooy la nga mel ni këpp bu toog nii damay porox ndool la. porox ndool wóoru de mag mag afal de. Eh, mag bu afalee rek eh, eh, moo ma neex damay af caaya pour afal la bàyyi ma afal ko ba mu afu. kon nag afalal da nga ko war a kon bàyyi ko mu afal ma ñëw man si samay question euh, gis nañ ne nag ñenn si politiciens yi ñu ngi commencé di def euh, campagne man wax ne campagne entre guillemets. Euh, te deret mi ngi siy commencé tuuru est-ce que duñu xaar ba nga xamante ne rek élection yi mi ngi gën a jege si man. tere tere gaynde yi nemmeeku tuur deret la dama ne ñoom dañuy bëgg indi ay tappale ana élection deux mille vingt trois muy takawaalu moom nana wax na takawaalu tuur <laughs> takawaalu tuur lay jàpp de nemmeekuul kenn day takawaalu moom munul dem Ziguinchor mu takawaalu foofu mu lijjanti projet bi mais mais Sonko lan mooy problème moom nii campagne ñëwagul muy takawaalu rek di dem ay dugg ay cikki ay banjaa di jëm ay jëm ay Malicounda waaye bi saf na. Ah. bi sëriñ bi sëriñ Malicounda bi. dafa bàyyi ba Ousmane toog muy muy garam muy garam maire bi. mu tudd maire bi. bi maire maire wu maire Malicounda bi. Maguette di gërëm Maguette Sène. non wallaay Ousmane takawaalu. takawaalu tuur. waaw man ba tey nag tudduma tur parce que man dam ne la ñenn ci politiciens yi laa wax. mais tudduma tur daal en tout cas yow yaa ko kon lu la ci fekk ak ak gàkku di takawaalu. makk mm. tanu takawaalu. makk mm. yi ñu gën la kam tabax liggéey wax tuuti noppi. ñaw. question beneen bi kon dama lay tourner rek sama benen invité bi di jaara euh, maa ngi lay laaj rek même question bi ana lan nga ci xam euh, tour deret mi ngi commencer am bien vrai que dañu tuddu tour comme Omar Rew moom ak mom tout est permis moom moo tuddu turu boppam mais ñen ci politiciens ñu ngi commencer euh, di def tournée comme yéen wa opposition. <coughs> ndey tournée bi yaakaar naa tey jii dañu def suñu suñu tourner tour deret bobu ñuy wax nonu fi ken touru fi deret fi kenn tuuru fi deret ay sos la rek ak loo xamante ne lu ñu jël rek bugg ñu koo moomaleel ndax ndeysaan boo lakkee kanam lakkee la ñu def ah, la ban sos ay ñu nga fa woon kenn mënu a teree koo teree wax ah mais bu ñu yaa ñuy traversé loolu moom ñu ñoo ko moom yaa ñuy traversé traversé sa question rek te bañ ñu traversé nag parce que amul dara la am te ne wax nañ ko wala bind nañ ko te am sa ñoor bi ngay téye di taaw yi si télé bi te ñun ñuy def émission yi tamit nag respecté ñu <laughs> ah sa caare bu rouge bi déjà bu ma ñooru

Macky ñu ngi koy tooñ de mais ñi nga xam ne ñooy wax ne Macky def troisième mandat c' est ils sont dans la réalité. si fan fu mu ko teg loolu mooy yoon. waaye ci naka léegi moom mooy kool bu jour bi ka nekk mu wax ko. jour bi ne bi ka war a nekk ñëwagul ndax Macky hmm. dese na ko deux mille vingt bi bii hmm. jeexagul de. deux mille vingt trois mi ngi ñëw. kon nañ ko bàyyi mu liggéey bu waree wax politique dina wax ñi yéene nag ñi koy àndal ñoo ko yéene rek te yéene boobu moom la ko ñëpp yéene. moom nag dina ko ndax yéene bi da koy def war di ko def ku mu nakkari daal ku mu nakkari daal nga dem boyal kon ni ko oustaz boobu waxee nga booyal gaz ba mu tàng dir dir dir dir ba mu tàng ba mu konk cur cur cur cur ba mu baax ba mu baax baax baax baax waxuma la nga toog ci nga riigu ci nga riigu bu ñoree yaa boobu moo ko waxoon waa léegi pare nga kon yow bokk nga si ñenn ñi nga xam te ne ko ànd nga mu nakkari troisième mandat nga booyal gaz ah. waxuma la nga taal di danga ko booyal ba mu boy ba mu kànk. ndey kii li muy wax sax da koo gëmut lan nga koy tontu li muy wax ci boppam xoolal li ci boppam da koo gëmut yow nan lañ lay invité nga toog ci plateau war a wax wax di wax li di riiglu di def yu kenn xamul eh, eh, eh, kii dafa yeb nit ñi waxatee wax yu ñaaw yu demay def dama lay def yu ñaaw laa la wax ngay may ma sama kaw tamit ngay man duma sa morom tey duma sa morom ëllëg yow séeréer rek nga danga may toogal danga may wax ak yow man duma sa morom danga réew boo jógee di sol sa veeru maar ñaar téeméer yi ak sa mbàjj borode bii nga xam na kenn xamul lan la nga taxaw fii di wax ay affaire eh, opposition te gëmu leen dara. pare nga yéen yéen a bëgg taal Sénégal yéen. opposition man man ndax pare nga wala pare ko man ragalu ma la ma réew trop c'est de xam nga yow réewoo da ngaa dof. yow réewoo da ngaa dof man maa la mu sut la ëpp la dama lay dóor fi ba nga dee. man nii xam nga boobu ba léegi yaa ngi ma ne pattu noppi ragalu ma la de nga def ak sa caay ju xonq ji nga may mel ni globe bi rouge njaxase jël lii tasee ko yaakaaram réglé sa bopp yaa ngi may dégg tegu may ma ñëw ci kii kaay fi yow. yow moo xamalooy def yi mel ni ku jógee kenn kaay ni réglé sa bopp. yow eh doo bàyyi kii. yow eh yow mii la ñuy wax ndey demal ndey bu bàyyi ma dóor ko bàyyi ma dóor ko parce que kii sama ndawaay bi rek la bëgg a nappaat yow mooy invité na kii ngay da ngeen may sot yéen ah ndey mu tey laa leen di bàyyi sama yéen dóor ba eh bàyyi sama roog ndey ndey jàppale ma ndey ñu may rek ndey ndey ñu may rek yow